Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. donc ku mel ni Babacar Diagne bu ñu ko tegee ci kaw Saynara dañuy yaakaar ci moom mu progressiste maanaam mu jël suñu démocratie yeggale ko foo xam ne mosu fa yegg waaye malheureusement gis nañu taxawaay na taxawaay boo xam ne dafa mel nii rek nañ ne askan wi bu mu yëg dara askan bu mu xam dara askan wi dañ bàyyi rek politiciens yi ñuy waxee na leen neexee loolu moo tax ñun ñu regretter le fait d'abord mu décider ne mu décider ne débat wu suñu débat bi du du am.